ba tey ci seen scandale du jour euh, euh, ñoom nag euh, dafa am fi tere woon waaye nag kii nag nee na moom ngeen tere ko ngeen bëgg ngeen bañu force danaa tuddee ba président samay bis nañ dem seetaani vidéo bi. asalaamaaleykum sous le haut patronage de son excellence.

kii son excellence yow laa ko tuddee da ngeen ku leen tuddee dinañ seet ba xam ndax da ngeen ko bañ waaxu muy dox la waaxu. <laughs> yow nag yaa ngi cokkaas nag yaa ngi bipp ñu bëri crédit yaa ngi bipp ñu am connexion ñoo xamante ne seen yaay wecci bu mu teg ñu sàcc ko jënd connexion hmm. seen xaalis seen yaay xaalis bu mu teg ñu sàcc ko dem wéccit maanaam nga dem dugg ñëw teg wala ñun jigéen ñi xam ne dañuy jël ay 500 ay kii sànni ko ci coiffeuse bi. ñoo sàcc jënd connexion bippe nga ñu bari connexion bippe nga ñu mën a ñu am jot tontu ñoom dañuy tere ñoom lii la ñuy tere lii au parrainage am au parrainage <laughs> nee nañ jeex na si dëkk bi xaw si boppam day jeex si dëkk bi enetaa hmm. xam naa ñi ene woon moom am nañ sens ñi ene woon ci nguuru Macky ah man sama baat baa ngi bañ sax <coughs> sama baat excusez c'est que kii li wax nii ak ak mun a xamee waa Pastef te ñoom dañuy bañ lii eh, bugguñu lii buñu ay pare parrainé ay marrainé ay yooyu bugguñu ko kii ne moom day parrainé <laughs> day ne Basir bi nga xamante ne tey la am semaine tey la am semaine ca ba yii naa ne joomaay ca ba tey la am semaine yoo nga ne da nga koy parrainé haute parrainage de son excellence monsieur Bassirou Diakhar Diakhar bi moom xam naa tout mois mën na dëkk jaxaay joxaay jaay ndax jaxaay bee jafe son excellence Bassirou Faye <gasps> Bassirou Diomaye Faye boobu sa dàkk na yow nag yaa ngi provoqué waa Pastef nag ñun dañuy tëre yii ay jàpp naa la njëkkeeg ay may naa la njëkkeeg magale geeg yooyu yëpp duñ koy tere ñoom ñoom liggéey rek caaxaan yëpp dañ koy tere ay batterie yu métti yii ay batterie yu métti ay état yi nii ah, man de xam naa waroon naa ene balaa jomaay falu de maa juum damaa juum de waroon naa ene balaa jomaay falu xam ne waa Pastef bëgguñu dara pour pour ñoom ambiance zéro ñoom benn ambiance lañ amoon muy concert casserole ba casserole ba jeexee yàlla dimbali leen falu nañ c'est kuy xewatede bu yeboo nga jënd ku ñaari ku béeru cin de loolu moom boo ko defee duñ la mere ndax Sonko daka daan def ñaari ku béeru cin bu kenn parrainé son excellence bàyyi leen ko mu liggéey bu ko kenn parrainé heure bii nag yorul dara nag heure bi amagul dara salaire ah te fa la jëli xaalis semaine la def semaine tamit.